Médina Koura jëm 15 ans Mbougou ci quartier Tambacounda yi euh, bureau 4 bi au niveau du département disons le Benno Bokk Yaakaar à 93 voix le Parti socialiste le choix de Tambacounda à 78 voix et juste rappeler que le Euh, responsable du parti socialiste authentique Souti Touré nee nañu il a voté à huit heures looloo tax euh, presse bi bi ñuy ñëw gisantewuñu ak moom mais il a voté tôt pour exercer son devoir civique moom aussi bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi doon accompagner la liste le choix de Tambacounda la liste du parti socialiste en attendant ñuy am Euh, le centre témoin de Bounama Diallo foofu nga xam ne am na luy toll ci treize avec euh, plus de sept mille électeurs en attendant nag ñu ngi fii ci centre sa où il y a neuf avec plus de quatre mille trois électeurs. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax mussa Omar Gueye je pense que par parti socialiste il faut entendre benn Bokk Yaakaar ci ni muy annoncer résultats yi bu nu mm-hmm. jógee ci. fi nga forcément parfois le parti socialiste a eu une liste.